ba daal di bokk sunu dundin moo di bés yu daal di topp ay bésu màggal julleeg ñoom seen daanaka lépp danaan yàcc ni yasar marché Gueule Tapée du ko weddi yoon yi bariwul ay nit commerçant yi daal di tëj seeni place jëndkat yi teg leen ay gët daal di jafe li mu doon demee di mu noonu ndax lan dëkk bu xaw naqar yi et puis jóge ci élection xaaj amut client balaa ñëw commencé waat ay semaine bii di ñëw mooy lool isaan yi nii moom client yi isaan yi ndànk-ndànk rek gis mais après doo gis kenn day na ni nit ñi nag dañuy jënd ngir ñaar wala ñetti fan moo taxit doo gis kenn. vraiment euh, bil mottale doon daal naam nag duguleet bile patt pattaaral ñu ko fi daal di nemmeeku naam nag jaaykat yi amoon nañ yaakaar ni dinañ ci daal di foraatu koppar wante nag dara. xamante ne ne isaan su ma dara. isaan ni balaa caax moom kon mun naa ñëw fii nii faraatu dara. man ko tey ba ba léegi demu ma ndax li may doon joxe naa ko dépasse maa ngi nii fi mu ne nii lii nii lii ci borom ñaw yi laa yaakaar maa ngi fi desaat nag fi mu ne dëkk la ŋaatuwaat. ñeneen nag ñëwoon nañ daal di xëy sii ngir ah, daal di waajal ah, dellu si client yi bu ñu sukkandikoo ci ñoom nag mënees naa nekk altine. comme les gens les segam nappkat yëpp dañoo daal di dellu seen i kër li ma jënd as tuut rek laa ci génnee li ci des ma daal di koy denc ba client yi ñëwaat. la marchandise. ba ay quelques bagages mooy loolu. yile commerçant yu ñu tàllal sunu lantinoor ñoom nag ñu ci bëri di xam ne ni tey dañuy teel a wàcc ngir rek daal di noppali seen yaram gannaaw jullib korité bu chargé ci ñoom.